monsieur Aymerou Nyeng moy deuxième bi wax ci majorité est-ce que est là après monsieur Elage Momar Samb se prépare comme ça on gën gawal waxtan. ci ay meru ñam la pam Monsieur le Président de la République ñun ñi bokk ci sa langue ñoo ngi lay nuyu di nuyu kilifa yi nga xamee ni yépp ñoo nekk ci sa wet Euh, chef de gouvernement ak membre gouvernement bi yépp président institution yi ak ce haut représentant auprès du chef de l'État nga wax légui ni da nga ko pour mu coordonner liguey bi am nañu yaakaar bu baax ci ni bu liguey ak méthode ak organisation fi ñu bëgg yegg dinañ fa yegg te loolu lañu xam ci moom président li tax ñu and ak yow dañ ko gis ki yow gis nga dajé bi ñu am fi tay ginnaw bi ma nuyo kilifa diiné yi tew fi yépp ak kilifa aday ak chef de parti fi nek yépp damay wax président ni li Sénégal am yombul bari na réew yu ko bëgg te mënuñu ko am nga woté ñu wuy si la kilifa yépp ñëw toog déglu la pour ñu waxtaan ci réew mi pour lu ko jëmee ci kanam ku defee ni yomb na yombul loolu Sénégal am nag dañ ko war a téye bu baax parce que loolu mooy ëllëg li nga xam ne moo ñu mën a jëmee kanam monsieur président dañu wax loo xamee ni nii ñun ñëpp war nañ ki mën a tënku suñu daje bii bu ñu fexee ba institution yi nga xamee ni ñoo ŋànk république bi ñun ñëpp ñu wormal leen sàmm leen c'est déjà un grand pas c'est une grande victoire institution yi mooy li nga xamee ni bu màbbee lu jóg dal suñu kaw daaneel ñu kon nag sénégalais bu nekk war nga am taxawaay pour institution yooyu ñu dëgër leen dëgëral leen jàppale leen kenn bañ leen a nërmeel parce que ñu leen nërmelee suñu bopp la ñu nërmeel loolu dafa nekk loo xamee ni wax nga ko léegi ci bi ngay wax ci diggante liberté ak responsabilité gis nga am na façon yàq yoo xamee ni bu ko nit yàqee il faut yoon dal ci kawam bu yoon dalul ci kawam ki koy lijjanti kooku mooy yàq réew mi mooy nërmel réew mi am na loo xamee kenn mënu ko nangu waaye nag yow lañu ñu jiital ku ñu jiital nag yàlla dafay def ci yow dugal ci yaw itam xolu yërmande ak xolu jégale waaye ci kaw nag mu bañ a dàqante ak charte yi nga xamee moo ngànk suñu réew président ñun ñi nga xamee ni ñoo ànd ak yow dañu bëgg dugg ci waxtaan wi comme niñ ko waxee te amul benn sujet tabou lu ngeen bëgg ñëw leen ñu waxtaane ko suñu ko waxtaanee ngeen joxe seen xalaat ñu joxe suñu xalaat ñu seet li gën ci réew mi ñu def ko consensus politique fu mu am lijjanti ba consensus boobu ñu mën ko doxal war nañ ko mën a am waaye nag na ko consensus jiitu mooy ñun ñëpp ñu waxtaan ci jàmm ak dal ku nekk fàtte sa bopp ñu xam ni réew mi moo soxla bu réew mi soxlaa kenn waratu la soxla parce que réew mi moo ñu ëmb sëriñ babacar si radiallahu taala anhu dafa daan wax ni ba ko Senghor seete mu ni ko bu ko xam yow rek bu ko sañ yow rek te bu sa xel bëreek sa xol na sa xel daan sa xol kon loolu mooy esprit dialogue bi nga xamee ni ñun ñi ànd ak yow dañu am fierté ci ànd ak yow ba nga toogee ba tey bis bu nekk yaa ngi woote dañu toog nañu waxtaan nañu diisoo nañu sottante xalaat exemple bi ma ciy joxe muy pétrole ak gaz jàpp naa ni wax dëgg yàlla bu ñu demoon tey ci jaloo di ci waxtaanat damay wax ni kon dañu yàq suñu wax luñ ci waroon wax wax nañ ko ci luñ ci war a def def nañ ko lépp luñ ci war a xalaat pour ëllëgu sénégalais yi mën koo jariñoo def nañ ko xaatim nañ ko def nañ ko loi kon loolu lu ñu jéggi la ba pare waaye nag xel du doy keneen ku am xalaat boo ci yokk ba nga xam ne xam nañ lii buñ ko ci dugalee mu gën a baax bu boobaa nga indi ko waaye jàpp naa ni ci loi yi gën a baax ci àdduna ci wàllu pétrole ak gaz président de la république fii la am tey Sénégal parce que dañu inspiré wu ci lu bëri maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëñ Aymerou Ñeng ci turu également ah sëriñ mooy monsieur rek wawu <laughs> naa sëriñ bi <laughs> jërëjëf donc sëñ Aymerou Ñeng ci turu majorité léegi nag di kaddu gi El Momar Samb RTS waaye bokk toujours ci majorité bi monsieur Mamadou Faye bu parti socialiste moo ci war a